Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu baaxoo ànd ak Tawfekh Production ñu ngi fii ci Touba di waajal bis bu tedd bi muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bisu Serigne Touba Khadim Rasoul di bis bi nga xam ne ah, ci la xëyee woon dem liggéeyal ci boromam. Ah, mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd ak Tawfekh Production ñuy fàttali ne Touba dëkk bu sell la bu màgg ah, ku ne xam na ne sëriñ bi wax na ci fu bëree bari ne ka ko tuddee mooy mooy turandoom turandoom mooy moo nga ca aljana Euh, wajal ilahi maskani tuuba abat misla smiha bi jaayi xayri man abat loolu kat euh, la nga cay déggee mooy bàjjeni tuuba daal euh, bàjjenam daal moo nga ci àjjana di dëkk bu tedd boo xam ne nag képp ku fi ñëw lan moo la fi indi mooy da ñëw ngir sàkku si tuyaaba ngir sàkku si barke wali kulli ummatin jaalna man sakkan xeet woo gis si àdduna rek suñ borom dala leen wutal barab bu tedd boo xam ne fa la jóg dem di ko di ko siyaare ji ah di fa di fa di fa di fa di fa di fa di fa yaakaar barke Touba gii nag ku ne xam na ne fu fukki fan ak juróom-ñett euh, jotee ci weeru safar a ah, lu ko njëkk sax ndax fi ne yëg seeguñ ci bis bi mooy nekk selibi yoonu réew mépp julli di ci àdduna bi fu ne la ñu bàyyeekoo di ñëw di seere Sëñ Touba ana nag boo ñëwee nag njëriñ yi nga fi wut si lan moo lay tax nga mën cee jot mooy sellal sellal sa pas-pas ñëw Touba ah wax dëgg yàlla ne màggal si am morit nga di jigéen ñi ah wax dëgg fi yàlla ñëw Touba dangay da màggal si ah, di xool ay jigéen ñu la xaraam ñëw tuubaane dangay da màggal si di dajeek ay jigéen ñoo xam ne nuuñ ci yow ci ay barab yoo xam ne woor na leen ne lii ngeen di def nii dëppoowul ak lislaam ah ba pare nga bëgg nag sëriñ bi faj say aajo nag loolu it mbokk yi am xel yanuwu ko loolu yanuwul maanaam waaye it ñëw tuubaane dangay sakk si barke poosub jàmbur boo jekku it dagg ko ah womme ko la ca nekk nga yóbbu ko it ba pare bëgg ne ah da ngaa da ngaa si da ngaa bëgg barke ma ne yaa ngi nax sa bopp lu baax boo ko dee sàkku da nga koy sàkkoo ci ndax damay wax ne bàyyi tere yàlla yëpp moo gën nekk ci ndigal yi kon nag boo ñëwee fii ci Serigne Touba wuyu si ko na nga xam ne bayit ma waxoon keroog rek ah, ah, ah wax fir li man biha xat sakkana walillazi laha li xayri rakina mbokk yi bayit waa moom solo ngi noonu mooy képp kuy ñëw ci Touba